tey jii nag euh, ñoo ngi waxtaane benn ci feebar yi nga xamante ni lu sonal askan bi la wala lu sonal sénégalais yi la muy tële tële boobu nag nekk na li xam ni lu doy waar la te li nga ni bëri na ñi nga xam te ni leen dal ba impuissance ak faiblesse dafa nekk ay feebar yi xam ni dañu xaw niroo ay synonyme lañ sax d'ailleurs ñoo bokk sax daanaka tekki waaye li ñu mën a wax daal mooy ki nga daal dafa am jafe-jafe pour ànd ak soxnaam wala mu am jafe-jafe pour mu sëy kon loolu nag moom liñ ci gën a seetlu jamono ji mooy xale yi dañuy seetlu ni ñoom yu si gën a bari xale yi dañu am jafe-jafe boobu ci wàllu doole wàllu ngóora ak wàllu kàttan wàllu sëy bu jëkkoon mag ñi lañ ko daan gisal mais léegi dañu seetlu ni xale yi ñoo ci gën a bari xale yu bari dañuy am jafe yu ni mel ci wàllu doole wàllu ngóora wàllu kàttan ak wàllu sëy loolu nag incha allahu rabbi yàlla am na lu bari lu ñu ci dénk léegi nag cause loolu li ko sabab li ci gën a bari mooy phénomène de masturbation moo ci gën a bari ñi ci gën a bëri nag loolu moo ko indi li nga xamante ni moom la ñu seetlu mooy sabab yi mooy bouillon yi nga xamante ni moom la ñuy faral di utiliser ci lekk yi ak lekkin yi nga xamante ni nekkul de très bonne qualité dëwliñ bu bare bi graisse bu bare bi cholestérol bu bare bi ak pâtisserie bu bare bi ak surtout dëwlin togg bu ñorul yi ci am ci fast food yi nekkuñu contre kenn mais dañuy wax rek jafe-jafe yi xamante ni moom moo am parce que yooyu ba ñu seetloo ni dafa commencé bëri Sénégal ci la ñu seetlu ni ndaw yi koy jël moo gën a bëri mais ndaw yooyu ñu si gën a bëri dañuy am jafe-jafe ci wàllu doole wàllu ngóor wàllu kattan wàllu sëy togg yu ñoru ba ñu nekk à l'extérieur dañuy faral di wax ñoom ci seen bopp ni gis ñu soxna gis ñu doom gis ñu njaboot gis ñu famille mais lekk-lekku fast food foofu à l'extérieur yi gën a bëri gi ñuy faral di utiliser ñëpp xam nañ suñu mbokk moodu moodu yi amuñu jot li ci gën a bëri ci ay fast food lañuy ñu lekk ak yu ni mel daf leen di indil ay jafe-jafe kon nag li nga xam te ni moom la ñu mën wax togg dëwlin bu ñorul dafa bokk ci liy indi jafe-jafe ci wàllu ngóora parce que dépôt de graisse saturée yooyu ngay gis HDL dafay faral di jur yi xam te ni dafay tële ci wàllu ngóora dafay indi ay jafe-jafe ci wàllu doole ak ngóora loolu nag lu ñu seetlu la ak lu ñu vérifier la li ñu mën a wax daal quand même mooy euh, solution bi nga xamante ni moo ciy mën a am am nañ ci ay garab yi nga xamante ni képp ku loolu dal maanaam doo yëg sa bopp ci ngóora wala book da ngay am sa soxna sa soxna tëdd nga tëdd pendant une semaine dix jours wala lu ko sut te doo mën a ànd ak moom wala doo leen mën a jëflante ci kàttanu suñu borom am nañ ci ay pexe mën nañ la si jàppale may la ci ay garab fajal la ko ba loolu dañ ndax loolu liñ ci gën a gis am na ci xem itam dañ leen takk xala mystique la dañ leen dañ leen takk xala dañ jël seen ay tur yóbbu ko ci ay sëriñ ñu am lu ñu leen def loolu nag li ci gën a bari day dem ñu def yenn ci ay frigo liggéey la beneen bi ci des dañ koy def ci ay glace yeneen yi ci des it dañ koy def ci ay suufu ndaal pour takk góor gi rek ba mu yoom wala ñu jël lëkkati dara sës si kawam des ko fu tàkkusaan suuf timis jotee waa ji fitam day tëf-tëfi bu tiimee soxna si itam du ci mën dara dafay mel ne dañ koy dànd wala ñu dell ko ginnaaw wala sàkkara bi dafay dem ba bàyyi wala mu lâché wala boog bu demee même pas une minute deux dafay éjaculer rapidement soxna si si boppam du ci gis boppam ba pare moom ku góor ki fu mu yëgee bànneex rek ndox mi day gaaw a génn te loolu bëri na ñi xam te ne dal na leen ñu ci bëri nag ci sénégalais yi yàlla def na am nañu jafe-jafe yooyu du ñu mën a yàgg ci sëy wala du ñu mën a satisfaire seen partenaire surtout problème mu satisfaction boobu du doyal soxna yi ci bëri du ñu doyal ci seen ay borom kër wala góor ñu bëri dañuy ànd ak jigéen waaye ñoom bala ñuy am bànneex dañuy daanu ku jigéen ki itam du ci mën a am bànneex mukk du ñu mën a yàgg wala ñi xam te ne da ngañ la naan sax bu ñu defee benn yoon bala ñuy mën amaat ñaar day jafe wala boog du ñu mën a yàgg trop ci mbir yi kon nag li ñu xamante ni moom la ñu mën a wax daal ak di ko dimbalee askan bi mooy am nañu ay garab yi nga xamante ni macha allahu rabbi euh, ñu ngi fii ci cabinet bi. produit bu baax la bu efficace la bu rapide la ci wàllu bu mel noonu ndax produit boobu moom la ñu tuddee efficacité rapidité et boobu macha allahu rabbi dafa baax ci doole wàllu ngóora ak wàllu kàttan wàllu sëy am nañ ci garab yi nga xamante ni itam daf lay dimbale ci garabu ñaam bi. reenu ñam bi la ñuy jël liggéey ko ci ba pare dinañ la ci mën a pour nga am une très bonne développement ci Walu Ngora ak Walu Sey. même bu fekkee sa dafa xaw ndaw magul, yokkuwul te du dëgër dafa lâché lolu dañ koy faj ci ñam bi lañ koy faje te dina mën a am dayo biñ ko bëgg ak niñ ko bëggé ci kàttanu yalla muy xalé yi muy euh, borom kër yi muy mag ñi nga xam te am nañ 70 dix ans ñooñu ñëpp nañu xamni ci lañu bokk ci kàttanu sunu borom am nañ seen ay garab yi nga xam ne ay lépp c'est traditionnel lépp c'est xam ni amul benn toxique amul benn chimique lépp li xam ni ay médecine africaine la fii la fekk baax suñuy maam ak suñuy maamaati maam daan nañu feebar sax naam yooyu di leen dal ba di leen ko faj ba mu wér nañu bañ a perdre suñuy valeur traditionnelle te ñu xam ni feebar bu mu mënti doon ñun am nañ ci ay solution feebar bi nga xamante ni bu mu mënti doon ci wàllu doole wàllu ngóor wàllu kàttanu sëy ñun am nañ ci pexe am nañ ci ay solution mën nañ leen si jàppale may nañ ci ay garab yi nga xamante ni macha allahu rabbi traitement yi gaaw na te boo ko jëlee incha allahu rabbi lépp dana baax danañ ci def ndimbalu sëriñ Tuubaa danañ ci def xéwalu Seydina Muhammad ci baaxu yàlla ak màggu yeneen ti beek aminu sëriñ bi képp ko loolu daal incha allahu rabbi wootal ci suñu numéro yi heure boo leen wootee vingt quatre heures sur vingt quatre di ngeen mën am seen livraison à domicile seen ay produit ci garabu doole yeeg ngóor a beek kàttanu sëy bi ci faiblesse sexuelle impuissance ak éjaculation précoce képp ku loolu dal ci baaxu yàlla ak maagu yonent bi danañ la jàppale ba loolu mën a dañ te di xamle rek ni inshallah allahu rabbi am nañ ci yaakaar bu baax ci baaxu yalla ak maagu yonent bi ñoo ngi gërëm Sénégalais yépp di gërëm kilifa diine yi di gërëm kilifa aada yi di ñaanal suñu xalif généraux yi ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal ci baaxu yalla ak maagu yonent bi